wa nuqtatun ben tombu tustataru def na ko bind min ba ji xam ci gannaaw xam sa fi na xam jaa ala firxawna ci lu mel ne jaa ala firxawna mu dur maanaam bu fekkee ni baa bi mu njëkk ah moo ci mujj ba ko topp itam ah moo ko tàmbali waaye ali da koo bijji nga bi nga ne jaa ah moo ci toppaat hmm? ah li ko wutalee yee rek mooy dëgg la sax ku njëkk ki ah moo ci mujj ku ñaar ah, ko tàmbali waaye ku ba nga ne ah alif na ko bijjuwaat boole ci léegi moom ko wutale ya dañ koy tasxiil tasxiil nag mooy nga bañ a jàng ah ci wér a wér ma ne xaw a jàng xa ah. tas tas tasxiil moom bu mooy am sa nga bañ koo wéral bu dee kasara nga xaw koo jànge yaa ah. bu dee dàmm nga xaw xaw a xaw koo bu dee fata nga xaw koo jànge alif alif day noy dañ ko jàng ah ñu wër wër ju deugar jaaha jaaha la firhauna jaaha la firhauna way lim la wax fi rek mom moy ah ñu mujj ji nga xam mo nek ci ala ak tomb rek nga fay def am dal ci top loolu la wax ne xam nga bo def alif ñu yaal alif manam bo defon jaa ba no pitam defar gen alif ko yaal alif mo fi tase wax na atob rek mo fi nek mom wala lay wax fi mom wa kasratun kasra aw damatu wala dam baxda fathin gannaaw fata ka shuhada iz ni shuhada iz wa jaa ummatan ak jaa ummatan ñene yoy bu nuqtati nek na ci tomb bu nuqtati je ci la wax ba daana bu dafa wax ne yaari am saya bu ñu tassé ge nek ci baat be ge nek ci baat be bu njëkk gi fata da ko topp moom kasara ni ki shuhada yiz hadara wala bu njëkk gi fata ka ko topp moom dàmm ni ki jaa ummatan ci alquran moom benn ci alquran mu ne su boobaa da ngay bind alif bu dee i ga nga def tomb ba ca suuf muy tomb bu ndaw te bañ koo maas tomb kese lay doon waaye du tee nga bind alif gi ba tey bu dee jaa ummatan jooju gannaaw boo def alif gi ngay def ab tomb boo xam ne moom it doo ko maas xam ne tomb kese lay doon tomb kese nga fay def te bañ koo maas ndax dañ koy def tashil tashil mooy nga wayafal waxin wi dañuy wax shuhada ayis hadar shuhada ayis yéen da koy wax yi te bañ wax i moom lay mel te tam jaa di wax bu dee ci war wars jaa um matan juwéri wér ñu mel ne ku jàng waaw xaw ko wayafal jaa a wum matan jaa a wum wum matan la ñu jàng war su naqaree jàng la boo koy sàmmanteeg moom da lo wal kasru kasara ga baxda dammatin ci gannaaw damm wal fatxu ak fataaga moom it ci gannaaw damm wax xul waxal ne bi nuqtati nekk na ci ab tomb wa shaklit ak ak maska wal kasru baxda dammatin yaari am say bu am sa bu njëkk bi daam bi ci topp kasara daañu ko misal legi wala am sa bu njëkk bi daam bi ko topp fata ñu koy tanké ngir mu bañ la jaaxal rek eh. bu njëkk bi dang koy misalé mel la yasha'u ila siratin ya, yasha'u ila siratin am nga koku am sa bu njëkk bi u dafa daam bi ko topp kasara doon i mu ila koku mu wal kasru damatin, damatin bu ñaaral bi nak mu wal fatahu damatin wala mel na yaa ayyuhal malaw ayyukum yaati nii bi arshiha ak tam nga day def woo xam du laalanteeg alif gi ba nopp nag maas ko boole ci bu boo kasara ni ki yashaaw ila nga maas kasara gi bu dee fataa itam gannaaw boo defee tomb nga maas ko ni ki bu ne yaa ayyuhal malaw ayyukum ngay tomb hmm. ci ko ba nopp dar koo maas tax mu ne naxu naxu yashaaw mel na yashaaw pax doxoo ju nekk ci gannaawam lafzu ila baatu ila a na mi ngi mel ne incha ji nga xam ne ilaalu ko topp kooku mooy bi nga dàmmee am sa bu njëkk bi te ba ko topp kasara <coughs> kooku mbari na ci alxuraan waxadaluha samaniyatun wa ishruna mat na ci ko juróom ñett u ayyukum ak ayyukum min baxdi malaw ci gannaaw ayyuhal malaw dafa def ayyuhal mala ndax lam laa defee ilaa dafa bëgg wax yaa ayyuhal malaw ayyukum jooju am sa bu njëkk bi dàmm ko topp moom fataa kooku ni ñu koy jàng moom daa xaw a doy waar maanaam moom am sa ñaari da nga koy soppi muy waaw ci yaar yi nga wax nii boo koy jàng doo jàng am sa waaw ngay jàng duñ jàng yasha u ilaa yasha u wilaa wilaa lañu jàng duñ jàng yaa ayyuhal mala'u ayyukum yaa ayyuhal mala'u wayyukum wayyukum lañu jàng xam ne foofu ñu koy soppi foofu muy waaw su ko defee itam nga bañ a jaawale tomb bi nga xam mu tim alif gi nga door ko maas bu ko jaawale tomb reer bi nga xamne mom la wala fi bind seen bind bu ñu waree fu ñu waree def tikin mu and ak am sa ñu ko waxee ci gannaaw ci bu ñu wax taswir nga ñaan ñi mom dañ koy def alif reer réel alif reer mom reer reer ba day nekk ci catul alif ga jàppaloog mom fi nak mom boy tek tomb bi tomb bi day tim alif gi rek wala bu de ci suufam mu nekk ci suufam da bañ ko laal nga maas ko nak boole ci ah boo nga weesu woon nag ci lu mel ne ayis xadara ak jaawu matan xam nañ koy ta tasxiil doo jàng am sa bu wér-wér foofa tomb kese bi rek nga fay teg te bañ caa boole genn maska. Mm-hmm. kazaaka naka noonu fatxun fata tilwa kasrin mbir mu aju topp kasara jaayin ka aayatin niki aayatin baxda mina ci gannaaw mina samaay ah, daa wax ne bu fekkee am sa bu njëkk bi dafa kasara. ba top mom fata ngo man ko gaaw misaal rek mu ne samaay aayatan rek mu la noppal xamne mom igi dafa kasara aaya ko top mom fata am ci alquran ak lim fukk juroom ben waye waaye dañ ko noonu ngay def manam a ñaaral ji dañ ko top ba noppi rek mas ko liñ ko mas a maas booy bind mu ne samaay ayat la ngay def ak tombu dal di def fata gi ci kaw mooy boo koy jàng koy soppi ak mina samaayi yaayatan lañu jàng yaayatan mina samaayi yaayatan moom lu sonn la moom mën nga koo xam ni sax te boo koy moom bof <laughs> ngir nga jàng ko moom boo la mokkal sax mën laa tax gàkk ndax moom fekki daaw ko def na nga jekk faaw nga tàggatu ci lu bare bare fas lu li ab dog la ital mafloox ndem lañu fataa laq ya tase naag fataan fataa fii kilmatin ci benn baat fa alifun kon alif qad harwa rahluna ana da wax ni nak bu fekke ne ben baat bi ci yaari am sa yépp tassé te yaar yépp dañu fata a kon neena am sa ñaari bu ndoko ko mas ah am sa ñaari bu ndoko ko mas mom nak ñu mel a zartahum ndax xop walen xam nga ñu dassa ci ben baat a a ci ben baat lay jang rek zartahum bu ci wax ji war ci wars am sa ñaaral bi jibu njëkk bi andartahum am lam tundirhum mo bari na ci alquran war na am ñaar ko juroom ñent gisuñu nak ci benn baat ñaari am sa tasé fa ba noppi bokk mas mas kay lonk wala bokk mas kay kasara dedet wan xott na nga tomb ayin naka ayin naka ayin na ayin na nga wax ni ayin na nasihati ak ayin na bi nekk ci suratul nasihati wa ilahun ak ilahun jom di gis rawanti na ngay gis ci soratu namli aiza ak ak aiza lal waqiya ti waxuma ba nek ci sar waqiya amen ah, ay ni ngay nga gis niki bi nek ci soratu yusuf a ah, innaka la anta yusuf ak bu nek soratu safat soko bindu am sab ñaaral bi dang koy ak ab tomb kesse baye rek nonu loko mas loko dara tomb rek ngay def ñu ko bindé fi ci jang rek ayna ayna la mardodona moy dina ki surat mo mom su ko bindu am sam ñaaral wara nek i ñu ko def bayi, rek bayyi waye do ko mas do ko def dara ay ilahu allah yoy ñu gis mu baam ay yoon yoon do koy bind non la am sam ñaaral gi ñu koy def rek muy octobre bu ay isa yi nga gis yépp bam dess ba ci waqiya bi ci wàq yi moom da nga koy bindee yaa ah ayisa mit naa joojee ci wàq yi moom da ngay def ñaari tomb ba noppi tegaat ab tomb ci suufam nag am na ñuy bind ci wolof ñoo xam ne ñoom tomb bi ñu war a ko def ci diggante bi waaye dafa loolu bëri tasuma dañ koy def waaye daal mën rek maanaam ngay def ñaari tomb teg tomb tomb su ndaw ci suuf bi ci wàq yi noonu la mel bokkut moom ci ayisa yi nga gis ne moom tomb kese ngay def. وخير ما لود ليغا خامي ذكرت ردناكو وفي ذلك بدايه جيا انينا نبوك تي مولا واخ ني موم من اي متان اك اي فكان اك اي نكم اك اي نا فكي لو تي ناسيات ييب مو نين نغا بند يابا نوبي تك استوم بي سوف ا تخسرا بنا وي تحتو النقطه يتك تومبو سوف وي بند اي متان اي فكان ñun loolu lañ koy bindee wa shaklu maska ga yanta fii dana dàqu fii jamihi zaaka ci mboolem loolu nee na yooyu moom doo ci def maska ah da ngay def rek bu dee tomb ba tomb kese lay bu dee da nga bind yaa teg ci tomb bi ci suufam it doo ci boole maska kii jàng nag su accès foofu te fekk lu bokk téere mu xam ne kon dañu faa jël mooy wii wan naqatu tomb ba lay yush kala defu ko maas Fi a urshidu ci a urshidu a ulqiya dhikru ak ba nek ci a ulqiya dhikru maxan doole seen ñom ñaar a unzila ak a unzila maanaam ñetti baat ñi a urshidu a ulqiya dhikru a unzila nga xamne yaay am say ñoo bokk nek ci benn baat te am sa bu ñëk bi fata bako ko mom dam su boba am sag ñaareel ga dañu koy tasxiil mooy des ko jàng bu wér a wér kon boo koy bind yow ab dong ngay def te tomb ba itam nga bañ koo maas dañuy jàng awul sidoo awul kiya zikru sila xaw ko wat faas moom ni ak dog la fil xam ci jaxamte ba al mun fari bi day bëgg wax am sa goo xam ne genn la nekk ci benn baat tam te boo koy jàng danga koy soppi waaw wala yaa mu ne nag wa naqtu tomb ga summa shakku topp maas ga fii maa nekk na ci la xam ne ubbi la wateef na ko nee na am sa bu fekkee danga ko weccee waaw wala yaa da teg ca kaw waaw ga wala yaa ga ab tomb tomb booba nee ne fii am saa fi woon loolu nag ci benn baat tax muy wax naxwu li laa mel ne li yàllaa mu wajjalan ak mu foog fekk li am laa la nekk noonu ci cosaan jël noon ko ci laam ga mu sopp li allah su boobaa am sa góob nga xam ne dafa top kassara gi moy li gi dañ ko daal soppi ak ak tàmbali jàng yalla su ko defé ni teg ak tomb nak fofu tomb bi wone ne fi am sa fi sa non ni ya hab wax hitam eh, ni ahaba laki gulaaman zakiyan lay wax nga xam am sa go top kassara gi moy ah gi top li gi des koy wëlbati mu di ak ya nga xam ne jang mom lañ cosaanoo mu wàjjalan ba tey mu ajjalan moo doon cosaan moom it ñu wëlbati am saga muy moo ci doon cosaan ñu ëlbati ko nag léegi muy waaw ndax li mu topp masque ak lonk laf lafdu yu waa xid baatub yu waa xid mooy yu waddi ak tomb ga ñeen ba tey boo seetloo yu waa xid ak yu waddi yëpp yu aa xid la woon ak yu addi waaye ñu ëlbati nag am saga mu di waaw ngir lim topp masque ak lonk gi ne nag in dam ma ndem dàmmeef na maa la nga xam ne alu waaw waaw ga adduwan ya top na lahu ñeel ko maanaam bala ñu wëlbati am saga mu ni waaw te fekk na ko jiitu nekk masque ak donc loolay tax ñu def ko kadaalika ni nu wax xiru nu wax xiru bi noonin ci noon wa bi yaay ak ci yaa maanaam nga jàng nu wax xiru ak bu doonee yaa muy nu wax xiru ñooyamo lu ci mën doon rek waaw gi am sa la woon ci cosaan topp gi mu topp masque lonk gi rek moo tax ñu wëlbati ko mu di ak waaw faslun di ab dog bu gàtt la ci fóonal ishmaam wa naqtu si at tomb si at si a ak si a min amaami xarfin ci kanam arafu siin wa taaman naa ak ci kanam nun ngañ doon di ca taaman naa falil ishmaami ñeel na ak fóonal ne na at ak si a gannaaw boo bindee siin soow sa dama cee teg ab tomb boo xam ne day nekk ca kanam siin sa wane ne des koy fóonal moom siin si fóonal googu nag ci ñoom ñaar mooy loo jàng kasara gu sotti waaye da ngay jël kasara ga xaw koo jaxaseeg dàmm loolu mooy fóonal gi ci yooyu yaar fóonal gi ci taa mën naa nag moom da ngay fàttaliku ne ta manna ala yusufa cosaan ma moo doon laa manuna su ko defee nag ñëwal ba ci <clears throat> gi ak <clears throat> bi jëkk war sa mooy def noonu daal jàng laa taa mënu jiitam nag te laa waxoon ci gannaaw ne la noon googu moom lañ jàpp ne moom la saxaaba yi bindaale wutoon ba nga xam ne yow da ngay def ab bañ bu gudd tek ci astomb ngir wone ko ne noon gi mom lañ ko dolli te sahaba yi bind ko woon mu ne nag léegi da ngay teg ab tomb gannaaw boo weesoo bañ bu gudd bi tomb si ngay tegaat beneen tomb nag bu ndaw bu wone ne des di fóonu ñu amé jooju ci naaji ci topp fóonul gi nag moom bokk te nga weesu maanaam mooy soo ne laataa man ba mars mars ga ne kebal saytum door tudd naa lolu modi di ëppoon alam dafa waxan ci gannaaw itam ne bind ta naa na da ngay bayyi mom ñaaral gi bañ ko sadda waye ñi ngi dafa am yaari wax yooyu xam yoo xam ñu ci gëna a yo yoo xam ni mooli mom dañuy far rek sadda mom gi ngir samonté yaari wax yépp yow nak batay sey bo def non rek soo bind kaamel sey boo far sadda loolu ñaareel googule faslun lii beneen dog la walay sa naqtun di tomb fi xuruufi yunfiqu muy nekk ci araf yi yunfiqu ida tatarrafat ndéem petu na mooy ndéem peggee na ca baat ba xalaamaa ci kaw li nga xam ne xàqaqo dëggal nañu ko wéral nañu ko daa wax ne yunfiqu muy yaa ak nuun ak faa ak xaaf bu fekkee dañoo mujj ca ba bu jar nga difa def bu tomb nek ya bu doone bu mujjé ci baat yanara rek ngay def nun munar rek ngay def xaaf batay tey rek képp ngay def bu dee faa fa do ngay def waye bu jar nga di bindale ya. ab tomb ba dara loolu mom seen tak tak la wal u yaga in sawara ndem dafa melal am sax aw sakkana wala mu sukkoon man nga net ne aw sukkina wala sukkoo neef ko rudda kon delloof ko ca ndeyjoor waaw dafa wax ne yaa bu fekkee dañ ko indi te fekk am saako ko waral jàng nga ci gannaaw buntu taswiir ak yaa wala waa wala alif kon yaaga bu fekkee dañ ko dañ ko fa indi ngir am sa niki min shaati il waa lay mani xam nga shaati di fi andi yaagi rek mooy am sa googu am sa gi dafa topp kasara ñu waxal nga bindaale ko yaa su fekkee dafa nekk ci mujj baat ba looloo ko waral nee na yaa mel noonu da koy def ñu wala fi wax ñarut mooy delloo ko mu dellu ca ndeyjoor genn nga ko nga dal ba tey bu fekkee yaaga dafa sukkoon sukkoon nag yaar la sukkoon guy dund mooy gi nga def ñu gis masque nekk ak gi nga xam day yaagoo xam ne nii kenn maasu ko mu bijj rek nekk gi nekk ci allati wala gi nekk ci alladi yu mel ne yooyu yëpp ñoo bokk àtte moom itam su boobaa da def yaaga yarut maanaam delloo ko ca ndeyjoor niki bu dee shay un xam nga yaaga dafa maas maas ko nekk bu dee allazi allati ji ma wax ba tey noonu moom it yaaga dañ ko bijj rek noonu dañ ko def yarut rek ba tey da koy def weerul rek ba tey wal xayru dul googu nag bi taariqi nekk na ci ak général maanaam daa wax ne nag su fekkee ne yaaga andi ko ngir am sax ba tey itam ci boppam amul masque nekk deful tam yaagu bijj noonu rek su boobaa kon bu loolu kon da koy def yanara loolu nag mooy sumase masque maas yet ca kaw ba ci suuf wala mu mas masque ka hmm ak itam bu fekkee ne léegi yaaga alif daa nekk ci kawam mel gi nekk ci ila wala gi nekk ci alhuda wala gi nekk ci musa yu mel noonu ba tey yanar lañ koy def yooyu yëpp jàppal ne seen àtte mooy nga def ko yanara am na nag geneen yaa goo xam ne sëñ Mbàkke bu soo tudd na ko ci fii te mooy yaa gi nga xam ne moom maas na sax maas keet ci suuf waaye ñaari sukkoon da koo jiitu sukkoon guy dund ak gu dee topp ca moom nekk gi nekk ci laa yes tax yii xam nga yes tax yii boo ko dee seet yaa gi dafa maas yii mel ne ko na nga ko waroon def yenara waaye ndegam ah da koo jiitu muy maas ak xaalonk ak yaa ci topp te maasuñu ko dafa bicc rek ñu koy tuddee sukkoon gu dee ba tey nee na gu mel noonu des koy def yorut te bañ koo def yenn la boobu nag moom boo ko dee seetlu am na yeneen téere yoo xam ne nii borom téere bi waxee nga xam na nga koy def yenn la ba tey am na ñu koy def ndax boo xoolee mool boobu ñu moolee Maroc te mu bari fii loolu léegi ak mool boobu ñu moolee Guinée te moom itam yaatu na fi yëpp moom lu mel ne yuux yi noonu la mel waaye moom dañ koy def yenn la téewul nag daa mel ne li sëñ Mbàkke bu sa waxee moom yaa gu mel des koy def. yërut ya mu delu ci gannaaw man nee dal yaari wax yoy bo ci top rek bu baax man nga top nak def ko yërut ndax mel ne bindal señ bi bindal señ bi ne lañ ko ci def Ya gi nga xamne nak mom lañu def yenara ya, mom lañu tudde aliyaa u uh, al mawqusatu ñu koy khaf ak sat yaage ñu delloo ci ndeyjoor nag wala fi di ko wax yorut nag moom la ñu tudde al yaa'u al maqusatu wal khulfu wuute ga yaridu dana rot neena ak wuute daa bari ci ni ñu yaa waaye jàppal li la wax rek al qawlu li moo di wax ja fil wasli ci am saguy ko jug waslu lii ci am saguy ko jug waslu suma naqli top am saguy ko jug naqlu am sa goo xam day waslu moo di am sa goo xam ne su fekkee moo nekk ci njëlbeen wax ja xam ne ci ngay tàmbalee danga ko jàngaale waaye su fekkee ne am lu ko jiitu danga koy bësaale rek dañ ko jàngaale niki istaxraja soo ci tàmbalee da ngay jàng am soo gi i waaye suk suka suma jiitu woon wala aw jiitu ko nga jàng tumas taxaraja wala nga ne awis taxaraja am sa gu mel noonu moo tudd am sa waslu moom nag yow mën naa xàmmee bu dee ci ku jàng naxu ndax li daal di xam ne fiilul maadin moom bu doonee yetti araf du ko am mukk am sa goo ci fekk cosaan la ca baat ba bu doonee boo ci indee lamar nag ci fiilul maadin moomee nekk ñetti araf xëy na mu am ko xëy na mu bañ koo am ci ni koy jàngee ci naxu rek nga jàpp ne itam ci xaal ba bu doonee juróomi araf amna ci ñetti façon ñu ko mëna am ñetti façon ñu ko man am nak te diko amitam bolé ja bu andi won seen lamar mo am am sa waslu su andee seen mastarif nona fexal hal ban bu doonee juróom ben araf mom mboolem tegg yi mu am yépp am sa waslu koy tàmbali te si bu bu andi won seen it faaw mu am ko su andee seen mastarif faaw mu am ko bu fi hal tam amna ay ben ben ci lisim yoo xam ne jang alfiya dañu la leral ne am sa yu nek ci ñoom am say waslu lañu motax yoy ñoom yom nañu xamé ci ko xamné jang na naxaw batay na nga japp ni am sa gi nek ci al dañ ca wuté ñu wax ni am sa gi am sa waslu la and ak lam nga waye am sa gi waslu la am ñu dédé al jëpp ngay jël boole te am sa gi tam nekkul waslu bari jëfëndiko getax rek ñu koy rotal waye say bo japp rek wax ji gëna woon ci jang mi fi mom moy nga japp ko rek am sa waslu ngir mu noppal la ci ni borom téré bi di waxe am sa naqlu nak mu ngi bayiko ci naqlu bi fi toxal manam jangum nafi'a mi nga xamni mom la warsh net li mom day def fo fek masque nek wala an jo xam dis koy jangale fu yari masque nek gannaaw ba nga tek ca ak amsa dañu toxal masque amsa ga rek jox ko masque yu nekk googu wala ànd gi ngay jàngale fi yaara masque yu nek te kenn du ko bindaale mel ne xul ahondu bu dee moom day jàpp ne xul ji masque nekk moo nekk ci àll ji ahondu am sa gi dafa maas masque yet ci kaw da ngay toxal masque yet gi jox àll ji daal jàng xula bu ko defee ah gi nag doo ko jàngati léegi li fi def suqi rek la nga jàng xul ahondu te bañ a jàngati xul ahondu bu dee al ba tey al sax da koo jàppee baatu boppam nga xam ne al bu duggee ci baat fekk ci am sax dañoo toxal maas am sax ga jox ko al jooju bañ a jàngati am sax ga nekki boo gisee innal insaana war sa moom day wax innal insaana ndax toxal na maas i ga jox ko alla jooju li bu dee fil day jàng fil ardi rek ndax toxal na maas am sax ga ko al joojee am sa naqlu mom bu fekkon ne du won wars dang koy jang jang wër wër bu dé ci wars nak mom mu am sa naqlu mom dang koy toxal ak maskam jox ko la ko jitu te bañ koy jangati bayyi ci rek ak suqi neena lolu bëgg na ko leral mom na bok na ci nga xawa jafel jangum wars, ndax man nga ko xam ni ba nopi te bo doon jang rek bu fekkee daw ko def nga jek ba min ko lu bari bari nga melni ku jang hafs niki di jang fil ardi wala nga jang innal insana yu mel noonu man sax bo setlo suma ma misal leg leg lu bari ci biir tere bi ma koy wax dana faral di waxe noonu rek ngir ñàkk gee nona noona ne mhm. loolu bëgg na ko wax léegi ci buntu bi muy tambuli yo yar muy am so waslu am so naqlu wal ibtida ak tambule ga ala saxihi naqli ci ajweri toxal nee bëgg na wax ba tay tom bi nga xamne moom lañuy teg ci suuf am sa waslu ngir wane ne li ko jiitu moo tee nga jàngale ko waaye su ko dara jiitu bu boo koy ta boo koy jàng fii nga koy tàmbalee bu fekkee ne day al nga xam ne al moom foo ko fekk ndegam al cosaan ji la ah rek lay tàmbalee boo ko day jàng su boobaa kon tomb ba moom ca kaw rek lay nekk bu dee am sa waslu gi nekk ci fexam la nga xam ne moom léeg-léeg ca final mu kasara ja maanaam mas maska ci suuf léeg-léeg itam mu def ca maska ak lonk su boobaa ba léeg-léeg mu nekk ci suuf léeg-léeg nekk digg ba yëpp nag nee na moom la bëgg a leeral ci buntu bi ngay gadi boroomu fataa in waliyen yam topp na fatt fataa goo xam daa cosaanu wusi la kon defeef ko am sa waslu daa bëgg a joxe ab takk su fekkee am saga ci boppam dangaa gis ñu maas ko maas yet ci kaw la ko jiitu itam maas maas yet ci kaw kon jàppal ne am saga am sa waslu la waaye loolu moom li lay njëkk leeralal mooy am sa waslu moom warut a fata lu may mu nekk ci at dong kon loolu ñu tuddi ak soqi rek lay wax bu nekkee ci kaw dagam day jàngal ay gone xëy jàng jànguñu naxu rek moo tax mu waxee ko noonu waaye am waslu moom bu nekkee ci fexal daa war a kasara mbaa mu damm mbaa ñu fóonal ko boo gisee ci kaw mu doon fata maanaam maske ci kaw xam ne ak suqi la kon jàppal daal boo gisee ñu am saga suqi maske ci kaw la ko jiitu nekk maske ci kaw moom itam da nga ci sartaale loolu ko jiitu ci mas maske yet mu nekk maske gu fa cosaanu nga xam ne ak toxal rek waralu ko ndax lu melni qadaf laha boko le set am saga suqi nañ ko ci kaw maska yat qada patay gis na ne da ji maska yat la waye da jooju moom dafay cosaanuwut xadd af laxa la woon dañoo toxal rek maska ak ga jox ko ko muy da ñu jang qadaf laha da nga ci àgg ci kat ko non mom jappal ne du am sa waslu bala ko doon rek am sa ko jitu nek maska bo xam na naka jek mom la wara ko taxal jox ko mel ni ko misaale alladina taqaw xam nga alladina taqaw na ji jiit alif gi maas na maas ko yat am sa gi sukki nañ ko a ah, ca kaw loolu foo ko fekk takk takk takk la ci ne am sa ga fa nekk waslula la rek